ah man daal nee naa man maa doon dem di lekk léegi nag dañ koy indi yow nag daa mel ni pat nga bëgg. waaye gis li muy xeeñ. dina am loolu lay neex. problème dina am damay abonné. est-ce que xam nga na affaire fu nit toog ci àdduna soo wootee les délices de Tima dañ lay indi lekk. waaw ah, kay xoolal. lii nag moom lii mooy lekk ba suur. c'est magnifique. maanaam daa mel ni léegi soo leen abonné ci délice ndutiment soxlaatul ngay dugg ci waañ bi <laughs> nee na ma Griff su guddee sooy dem seeti sa xarit ah joxal ma ko lii téeméeri junni la mu jënd ci singom Jojo. <laughs> ah noonu la def daal nee na ma Griff ah, mu ngi noonu mm-hmm. nekkoo fi woon moo tax teewoo sama xew waaye xam naa yëg bi ma yëg ak ma teg. ndeysaan mu ngi noonu. li yàgg nga ma koo ah, ah. daal la romb rek ne ma Griff xaaral ma bind la chèque bi sooy dem sa xarit nga joxaaleel ma ko nekk mënu ma woon ñëw. Ah. ah kon répétition la kon. ko